di président présidente femme nous Lat Diop yëpp di président des jeunes le coordonnateur départemental mon promotionnaire mon ami moi xarit mooy Bakary Traoré ñoo ñoo amandoo defal fii ci seen Canada maa ngi nuyu présidente femme GLB mouvement Guédiawaye laa bokk Adja Ndeye Fall bu ma ko nuyoo nuyu naa Pape yëpp jëmm ji nag le président Lat Diop le président Lat Diop li ma boole bëgg ma bu baax ma xel. dama ne li ma booleeg moom mooy fi ngeen daanelee dërët ma booleeg moom dëkkandoo ma booleeg moom doomu Géejawaay ak Lat Diop. Lat Diop 2014 mu demee élection locale dañoo daje PA yi. ma wàcc ci sama oto bële yéeg si oto teg ko ci kaw plateau ñu taxaw ca kaw sama benn collègue ne ma amoo droit def lii ndax journaliste ma ne ko kii doomu dëkk bi la élection dëkk bi la ñu jëm am na ñu fi ñëw dëkk. Yambal rond-point PA yi buntu kër ñoom la voile nu mu tudd ci muuru dama nekk si buntu jaara Banjar ma romb buntu këram may fay yor micro la jóg nekku fa invité wuñ ma may romb ak suma oto ànd suma soxna ma gis ñu bind ci banderole bi la jóg ma gaari ci ngañ mii wat wàcc ñëw jëlaat micro invité wu ñëwagul sax boobu ñëwagul boobu ma romb fa rek ñëwagul sax ma wàcc jël micro ne leen jàppale leen seeni doom yéen waa Guédiawaye nit ñi sonn nañu ci wàllu yan gi sonn nañu dama leen ma s'il vous jàppale ay nit ñoo xam ni ci aadama ak awa la ñu gëj sama collègue bi mu ngi mu ne ma une deuxième damaa bëgg mu mujj tey waxoon naa la ko keroog waxaat naa la ko qui il a à la confiance. Vous comprenez man nag dama doon ànd ak nit ndax ay koppar ndax ñi joxe koppar ak ñi joxe 2 millions ak ay oto nit ñi xam nañ man doomu dëkk bi laay àndal waaye boo dëkkee ci dëkk bi tam dem ànd ak jàmbur yi war ñi nga dëkkal xeex boo mën a ne man du mën a jàpp man am na boo fi bàyyee doomu dëkk bi laa wax. ànd ak i jàmbur di xeex doomu dëkk bi a ndax maa moom sama wéccet wu ndaw mi ma moom waa géej waay laa koy jox kii kii la du ma jàppale leen ko jàppale laa wax parce que ku amagul dara di dawal yow bu amee doo wax dara. dafa waroon fekk ñu bind fa doo du ministère de la santé wala doo de la coopération nangam état Sénégal waaye dañ cee bind doo de monsieur la Diop. dem naa ba Kërëb yéen ñëpp ambulance maa leen ko dëgg gis dama ne ambulance bi yéen ñi fi nekk yëpp maak Bakary Traoré ñoo ko gisandoo ñoo leen ko dëgg gis may réunion ak moom Kërëb. ñu dajeeg moom ñuy wax téléphone suba nga dundee ba tey tamit moo ma woo ndax dafa am lu ñu géejawaay gii doomu géejawaay yëpp ko seq tey fa la ñu jógee parce que doomu parce que foofu amul ay ak ay pouvoir lu ñu leen di ñaan waa géejawaay dimbali seen bopp dimbali ñu jël ab jàmbur bu jógee ca àll ba mu ñëw doon suñu buur loolu 2019 bii daa war a jeex. dama ne dama ne dana jeex par force gis ngeen géejewaay bii laa wax ren ren bu yeboo yëpp waay te gis nga li may xiin xiin yi nii naan dama engagé wu yëpp man dama wéetal lu ma engagé wu ma gën a engagé xam nga parce que instant bii tey la nag carrière tey la fa kanam la lépp te nag même bu dee xam naa lu bëree bëri yéen xam ngeen as tuut ci instant bii li muy dund yéen nag jigéen ñi laay wax balaa may ñëw ci sëñ yéen soxna yi dëkk banlieue ak Guédiawaye dimbali leen ñu ngir yàlla yéen a ñu jur dimbali leen seeni doom.

agresseur malien ngay ñëw jël ko léegi dugal leen ci ay L200 jox leen ay jaas dem si yàlla njëkk a ñu fa nii balu se lañ ko dóor mu dee suñu doom la géej wàll loolu daa war a jeex ci biir réew loolu pour mu não il faut ñu yegg ci instant de décision yi jiite dëkk bii élection locale yaa ngi nii di dikk dem leen ci seen i doom jàppale leen seen i doom jàppale leen seen i doom affaire bi amatul négociation maa doon taxaw ci mbooloo naan heure bi jotatul bu jotee bu leen ma filmé bu jotee ñeeg ñeeg ñeeg ma tëj ko dara luy jot na jot na ginnaaw de il est l'heure gars yi buñ ko bàyyee fi mu ne buñ ko bàyyee le premier décembre carte gi lay leer nee naa leen buñ ko ajee nañ ko aj buñ ko ajee ba 2035 ñu toog ci suuf di leen xaar ne ko sa aj président la Guédiawaye est fier de vous Vous êtes un cadre. Vous êtes une victime.